bëgg yonent bi moom kooku yaramam xaram safara xoolal Abu Lahab moo nga nekk safara waaye bésu lendi bu nekk dañ koy génne mu noppali ndax bu yonent bi juddoo bésu lendi su way batu ñëw jaamam ji ne ko am na doom bu góor Aminatu am na doom bu góor kontaan ci ba ko goreel naa la mu goreel jaam boobu mu kontaanoon ba goreel jaamam moo tax yéeféer la de safara waaye nag bésu leen di bu nekk dañ koy génnee safara motax way kat bi daan wax shamsu dina dimashqi nena iza kana hadha kafiran ja azamu bi tabat yadahu fi لكنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه لسرور بن احمد فما ظن بالعبد الذي طول عمره باحمد مسرورا ومات موحدا سنة كي يفير لا يالا غاني نكو القران تبريدا ابي لهب ندخ القران واتي yonent bi la sallam woo nit ñi ci yàlla moom dafa woo yonent bi ne ko tabbal naka saa iral yow mi alih daaw tan yal na la yàlla alak jurna bi lii nga ñuy woowee yàlla ne tabbal daa min fawqi sab'i samaawaat ci kii su nekkee ak la ko yàlla di rëbb ci tabbal daa yëpp bésu leen su ñëwee yàlla daf koy woyafal lii la mu bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woyafal ko safara génne ko safara kon fama zannu bil abdi li tuula umrihi bi ahmada masrur kon ko nga xam ne dafa bëgg yonent bi nekk jullit dundam yëpp su gàmmu ñëwee sax nelaw guddi googu kon lan la ñuy wax ci kooku mooy fi ñu kooku tamit yaramam xaraam na sax kon ku am bëggee lu yonent bi am nga lépp ku ko manqué manqué nga lu ne Aboubacar yi soo déggee ñuy wax moo gën ci saaba yi ngeneew lu dul bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax bañ ko laajee loo bëgg ci àdduna mu ne xubbi ba ilayya maanaam min dunyaakum salaasa mu ne àdduna bi ñett rek laa ci aljulusu bayna yadayka wan nazaru ilayka wa infaqu mali alayka aljulusu bayna yadayka ma toog sa kanam rek yow yonent wan nazaru ilayka ak ma lay xool wa infaqu mali alayka ak jël sama alal di ko dépensé ci yow man ñett yi rek laa bëgg ci àll yonent bi wax na lu bëgg ci àdduna Omar wax na Ousmane wax na Ali yi wax na Abu Zarin al Ghifari wax na Seydina Jibril wax na waaye Abu Bakr moom li mu wax leer mooy toog ci kanamu yonent bi ak di ko xool ak di jël alal di ko jox ñoom ci yàlla moom saa sallam loolu rek la bëgg moo tax yàlla may ko af de liye bi ko ko may mu gën mboolem li yàlla sàkkoon yonent bi nee na maa tahta qubbati samaai ba'dal anbiyaa'i afdalu mu'minin ron mbaaru asamaan su yonent yi passé amul mu gën Seydina Abubakar te dara xamee wu loolu du ci bëgg yoon ci yàlla moom saa sallam yonent bi yow sa yaram araam na safara yàlla na yàlla may bëgg bokk na ci bëgg yonent bi nag bëgg waa kër yonent bi waa kër yonent bi nag suñu leen waxee ci zahir mooy aalu jaafarin aalu abbas aalu aqilin waa kër yonent bi mbooloo lañ ñii ñëpp ci lañ bokk waaye kenn moo yor mazhab mooy feeñukaay bi mooy ki nekk suñu ginnaaw ni mooy Cheikh Ahmada Tijaani moo tax Baye Niass di wax aalu nabi muhammad yi jam un ata fi mufradi mbooloo njabootu yonent yàlla muhammad jam un mbooloo lañ mooy aalu jaafar aalu abbas aalu aqil waaye ata mbooloo mi dañoo ñëw fii mufradin ci feeñukaayu kenn ñu waxee yàlla na yàlla julli ci yonent bi mooy nubuwa wa yi ak njabootam mooy Cheikhu Tidiane moom mooy wilaaya kon ndekete njabootu yonent bi bëri nañ waaye feeñukaay bi benn la aalu nabi muhammad yi jamun ata fi mufradi wa sahbuhu fi diini diinu nabi ji ahmad yi kon Cheikhu Tidiane mi koy critiqué sax te nekk ay borom xam-xam yu mag doon bind téere di ko suma ci ku critiquer askanam ñoom ñëpp d'accord nañ ne waa kër yonent bi la moom ci ahlu bayti rasulillahi la ko kon bu boobaa nga xam ne ñun chance la ci ayyaamu nafaxaat al ilahiya ba si nga xam ne yàllaa ngi sànni ëffam bi te yonent bi nee na inna li rabbikum fi ayyaami dahrikum la nafaxaat xalaa fata arradu la bés yi ngeen di dund am na ci ay ëf yi yàlla di sànni fexe leen dajek ëf yi la alla an tusibakum nafhatun fala tashqawna baadaha abadan su la benn ëf su ëfu yàlla yi dalee dootoo texe xaj ba abadan da ñoo ngi nag yàlla yi ndax ñoo ngi ci weeru koor moo gën ci weer yi ñoo ngi ci yaa yaani fukki fan yu mujj yi ñoo gën ci euh, bés yi nekk ci weeru koor te ñoo ngi ci guddi te guddi yi ñooy gën bëccëg yi te am nañ yaakaar sax ñoo ngi ci leelatul xadir nii parce que dama ne Cheikh Tidiane su jegee guddi gu nekk leelatul xadir la su jegee bés bu nekk bésu àjjuma kon ñoo ngi mën a xaat ak leen ci place bu am barke ci waxtu am barke ànd ak góor yu am barke oustaz moo ngi ni Cheikh Ahmed Sall yaa ci rajul rijalu safa la bokk naanu maa rijali safa fi awqati safa ma arajuli safa maulana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu fi shahri safa fi ayami safa kon lépp day nekk safaa rek set yàlla nañu yàlla may safaa ci barke alxuraan nim ñi mayee ñu daje fi ren yàlla na yàlla may ñu daje waat loolu déwén ànd ak yokkute ci barke alxuraan daraja yonent bi salaay salaam kon euh, Badiane alhamdulilah awwalu da'waana wa aaxiruha alhamdulilah. salaamaaleykum wa rahmatulah.